ay dara ñu ngi lay nuyu oui jërëjëf. Euh, nekk nga benn ci membre fondateur nekk itam membre conseil administratif centre victime régime Yaya Jammeh bisu gaawo yema woon ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2017 ca Banjul yéen yi nga xamante ni yéen loru woon ci régime Yaya jàmme da ngeen dooroon ci ndimbalal organisation international lu ci mel ni Human Rights Watch Trial International ak Fondation pour l'égalité des chances en Afrique benn campagne international ngir ñu amal procès Yaya Jammeh lu waral googee campagne. campagne boobu um, boo gisee ñun victime centre de victime. Mhm. ñu jot ci ak suñ partenaires yi. dafa nekkoon lu war. parce que depuis vingt deux ans. ku nekk di def yu bon. yu bon a bon a bon a bon. te ay nit. am rey nga leen. violé nga leen. torture nga leen. yu gën a bon bon a bon. alors ñun bi mu demee. ñu fondé suñ centre des victimes bi. ba pare centre des victimes bi. temps boobu noonu lañu ñu jóg. ne war na. pour ñu commencer def campagne bi parce que baax na pour ñi des aaduna ci asi ah, li des ci aaduna ñu xam li xew ci suñu dëkk bi moo tax ñu jóg ne fokk ñu woote campagne bi mm-hmm. waaw looloo tax kon su ma la déggee campagne bi dafa yemoo ak sàkku teef bu nga xamante ni ma nga bàyyi ko ca Gambie. loolu dëgg la. Mhm. loolu dëgg la. waaw yu bon ñiñ fi defoon. Mhm. moom lañ gënoon a bëgg a wane. Mhm. moo gën a tax ñaawteef yi moo tax moo gën a tax ñu ne nañu jóg yuuxu ko. parce que tamit ñaawteef yi yemul si peuple gambien bi. ñaawteef am am na ay Ghanéens yu rëy mhm. am na ay Sénégal yu mu mhm. am na ay Niger yu mu rëy ba am na ay crime yeneen yu bare yoo xam ne commerce na ko mhm. tamit ñu décider na ni war nañu comme victime pour ñu yuuxu loolu noonu ci kaw. très bien li ngeen bëgg moo di Yaya Jammeh tey nga xamante ne nag ma nga daw làqu am benn bés mu daal di taxaw wuyu ci ñombe yi nga xamante ni def na ko mu mel ni kon da ngeen a mar ngir yoon def liggéeyam. waaw xam nga ci dëkk yi ñu nekk comme bi comme Sénégal. Mhm. dëkki loi la. Mhm. te loi moo tax ba ñu am organisation bi am ci suñu dëkk yi. alors bu loi amuloon dëkk bi dina jaxasoo te loolu euh, yal nañu ci yàlla musal parce que sans loi benn organisation du am ci dëkk alors à cause de loi boobu saa bu nit tooñee war nañ la yóbbu ci kanamu tribunal mu jugé alors bu fekkee ne nag nit tooñ na ñu bañ la jugé dafa nuroo ni loi boobu respecté wuñ ko te loolu lu dangereux la parce que mun na isil ñaaw te bu mag ci dëkk bi loolu amee alors looloo tax important important na trop pour ku tooñ ñu yóbbu la ci yoon te kenn magul loolu mhm. ñëpp ci am muy Yaya Jammeh ak ka nekkoon sa suuf mhm. ku ci def lu ñaaw daal war nañ la yóbbu ci kanami yoon waaw ñaata victime ngeen jota recensé depuis bi ñu ñu commencé. Mm-hmm. quelques années. Mm-hmm. recensé nañ ay june june june junne victime ci mm-hmm. Gambie bi yëpp. pa seulement ci côté capitale bi. mais aussi ci kaw kaw gi. yeneen place su Gambie yëpp dem nañ fa recensé nañ fa. alors euh, fu ne région bu nekk am nañ fa kenn koo xam ne mooy njiit suñ association bi muy centre des victimes moo lay woon ni ñu présent yee fu ne ci gaam bi centre bi lan la apporteel victime ñi nga xamante ni ñoo loru woon ci régime mu Yaya Jammeh Baba waaw li bi gën important mooy wërgu yaram parce que ba muy dem bàyyi na ci gannaaw ay ñoo xam ne ak ay bal te seenu yaram bàyyi na ci gannaaw ñoo xam ne dañ leen torturer bàyyi na ci gannaaw ñoo xam ne dañ leen tàpp comme ay yii yëpp nekk ay crime contre l'humanité yoo xam ne bàyyi na leen gannaaw mais ñooñu amuñu woon kenn ku leen ay dimbale amuñu woon kenn ku leen ay fayal seen prescription yi amu woon kenn ku leen ay dimbale si seen problème psychologique yi amuñ kenn ku ñuy waxal suñ soxloon dara alors moo tax man ak ngeneen ñu jóg ne waroon na pour ñu créer centre des victimes bi ba pare depuis bi ko créer centre bi dafa nuru woon ni marché parce que dañuy dimbale ñu bëree bëree bëree bëree bëri loolu li tax ñu mun ko mooy suñ partenaires yi comme Side of Conscience aux États-Unis comme NED aux États-Unis comme euh, le gouvernement allemand comme les autres donateurs yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom pendant de années waaw. Mhm. kon suma la déggee maanaam centre bi am na benn importance ci ñi nga xamante ni ñoo di victimes yi. bu baax a baax a baax. bu mhm. baax a baax te yemul rek ci sa njëfu wér gu yaram yéen ñi ki ñu jël ci sa famille mooy ki daan ici pour ngeen ay mën a lekk pour ngeen ay mën amee sa famille. Mhm. alors ci wàllu loolu tam ñu ngi dimbale ñi ñi mu bàyyi gannaaw. Mhm. yenn yi mooy veuve bi ak doom yi ak lu ne. Mhm. alors loolu yëpp centre bi mu ci. waaw ëllëg yemook 30 septembre rapport final commission vérité réparation ak réconciliation ñu war kaa jëbal njiitu réew ma ca Gambie di Adama Barrow lan ngeen di xaar ci googee rapport Baba Aidara googee rapport yàgg nañoo xaar sax pour président bi mu recevoir ñi ko ko préparel mm-hmm. deux fois décidé woon nañ ne dañ ko koy jox mais ñu annulé ko mm-hmm. ba léegi mm-hmm. sax c'est pas encore sûr mais li ñuy xaar ci rapport boobu mooy yu ñaaw te yi fi bare fi amoon ñu wone leen ba président bi gis ko te def li ko war te loolooy li nga xam ne moo juste victime yi li nga xam ne moo juste si lu ñaaw yi ñu def sa peuple bi sa nit ñi sa jigéen ñi sa góor yi pour nga taxawal leen loolu rek lañ koy ñaar président bi mu taxawal ne ku def lu ñaaw mhm. ñu yóbbu la si loi wante bëgguñ li tubaab bi ooyee am um, selective justice te loolooy dinañ jàpp kii wante dinañ bàyyi kële mhm. affaire yi daal nañuy ñuy mm-hmm. mooy ñi nga xam ne defuñ yu garaaw a garaaw des na si ñiñ def yooyu ñu mm-hmm. baalal leen. Mm-hmm. mais ñi def yu garaaw yi ñu baalal leen bañ leen a baalal dinañ dem taxaw yi ci kanamu yoon. alliance patriotique pour la réorientation ak construction bu Yaya jàmmee wax na ne ni signé na ab accord coalition ak parti national du peuple nga xamante ne nag jamono ji juturama fa la nekk mu di Adama Barrow jëm ci élection présidentielle yi war a am ca réewum Gambie ci weeru décembre. noo gisee googee alliance. alliance boobu day tiital ñu noonu parce que rumeur yi ñu ngi koy wax depuis des mois. mais loo xam ne la warula ko woon a def. waru ko woon a def parce que. dina tax ba dina xala taxal suuf. recommandation yii ñu ko war a jox parce que même alliance boobu am na ay membre am ñoo xam ne bokk nañ te dinañ bokk si recommandation yi parce que def nañ yenn yi mm-hmm. alors de ce fait dina xala jaxase affaire yi un parce que mm. doo mun a condamné sa propre membre parti ba pare boo ko doon condamné sax ni nga koy bëgg a baalalee doo ko baalalee keneen ki te mooy li ma doon wax avant mooy selective justice bi mm-hmm. te loolu la ñuy bañ mu am mais ñu ñu ngi taxaw di xool même su fekkee ne président bi naru la def dara ñun dinañ seet yoon dinañ seet ñu ñu aw pour yóbbu koo xam ne def na benn victime yenn yi te victime bi bëgg koo yóbbu parce que victime bu nekk libre nga pour yóbbu ki la tooñ mais victime bi moo koy bëgg mhm. ba kenn du forcé boo buggee nga yóbbu boo buggulee mm, kenn du la si forcé mais yoon moom yoon la yenn yu grave yi nga xam ne commettre nañ ko mooy crime yi boobu moom yow nga bugg ko nga bañ ko yoon war na ci teg loxo mhm. waaw mhm. wax nga ko mën na andi problème naka la président Adama Barrow di topp allié wam euh, bu fekkente nag commission vérité bi daal di na koy recommander mu daal di incriminer kii di Yaya Jammeh um, loolu day bu defee mhm. um, dina tiital allié mi bu baax a baax a baax Mhm. parce que ali loolu moo nekkoon seen première condition ci dégg yiñ dégg ne li ñuy essayer pour def mooy buñ ko boole ci dara ñu bàyyi ko mu dellu si waat fii ci jàmm toog ci li ko desee pour dund mhm. mais loolu koo xam ne la deful kenn dara la mais bu fekkee ne tooñ nga presque des milliers de personnes boobu foog naa loolu du mun a possible ci aaduna si ñu nekk nii mhm. Baba alliance bi dox ci diggante Yaya Jammeh mi nga xamante ni nag ma ngi en exil ak euh, njiitu réewu Gambie jamono ji daanaka mën naa lompoñal liggéey am solo bi nga xamante ni commission vérité bi def ko ba saa si loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que um, commission bi liggéey bu baax a baax la commission bi tax na ba yu bare yoo xam ne um, dañ ko nëbboon feeñal nañ ko alors su feeñal biñ ko feeñal tax na ba gën nañoo xam yu bare pas seulement si liy xew si recommandation yi mais ki suñu bopp comme Gambien xam nga hmm. te lii doon la pour ñi nga xam ne dañ yàgg wax ne non du dëgg dañuy wax rek du du dëgg mhm. pour ñu xam ne dëgg mhm. pour ñu xam seet naka la ñuy xeexee pour bu mu amati te mooy slogan bi commission bi jël mooy never again da ci yam amati mais bu fekkee ne commission bi dañ ko jël dégaat cee lu ne bañ koo res dafa naroo nii dañ bëgg a continuer ci li ñu nekkoon te hmm. loolu moom hmm. fi mu ñuy def mooy bon rek lu mus a baax alliance patriotique bi ñoom daanaka musuñu ndëbb seenu projet ñëwaatu Yaya Jammeh ñu daal di koy amnistie ni ki noonu itam jox ko avantage yi nga xamante ni ab ancien chef d'état war na am loole moo di seen principale exigence mu mel ni exigence boobee nekk na lu bari comprendre loolooy wanee ne sax ñoom comprendre nañ ne kii ku coupable la mhm. te ku coupable rek la ñaanal bu coupable toon duñ ko nekk di ñaanal ñaanal mhm. alors moo tax ñu def lu leen ne pour ñu baalal ko baalal ko mais comme ni ma ko waxee du président Adama Barrow mooy baalal mhm. kii baalal mooy ki ñu def lu bon mooy ki ñu tooñ mais ki ñu tooñul doo mun a baalal dëgg la nag ne président mun nga ah, def amnistie mun nga amnistie nit mais nga amnistie koo xam ne def na ay crime yu grave yu yooyu noonu loolu du mun a am parce que ba léegi bu ko amnistie mhm. yow mun nga demaat yeneen instance yi nga yóbbu nit kooku noonu mu uyu ci yu bon yim def yu ñaawteef yim def. Euh, alliance boobee ba tey ñoom nag euh, wax nañu ni preuve yi nga xamante dañu ko génnee jëlee ko ci deux mille six cent déclaration ak trois cent quatre ci ay témoignages mu di seede ñu ñu taataan ci ñaari at ak genn wàll yu ñu wees ca kanamu commission vérité ba dafa bokk ci ab propagande bu ñu daal di taxawal ngir diffamer. ex président Yaya Jammeh noo gisee loolu baaba. foog ñu waxee noonu parce ñu ne. la dara dalulee. Euh, doo faale. te loolu laa fi gën a gis en Gambie parce que fii dafa nuroo ni comme nit ñi dañu gumba dañu bëgg a gumba wala dañu parce que yen yu bare xew na fii ñu bëri parce que dara dalu leen alors faale wuñu yéen ñi sax am na ñeen ñeen ñoo xam ne dara dal na waa léegi parce que ñoom mhm. dañu bañ a dañu bañ a gëm dañu bañ a gëm ne crime yi fi amoon en vingt deux ans yëpp amoon na fi parce que dalu leen directement dalu leen directement ba pare bañ nañ ko nangu mhm. parce que faale daal mhm. parce que mooy ni ma ko mooy nga am sa kër muy tàkk sa voisin bi dafa war a ñëw dimbali la mais nga am sa kër kuy takk sa voisin bi toog di la xool yow ngay nekk di daw mhm. di yuuxu mais loolu ban façon ngi société ñu nekk ban façon ngi société mhm. te loolu laay laajte léegi ci suñu société bi ñun Gambie parce que la plupart dafa nuroo ni pour ñoom dara xewu fi tout était bien pendant ans mais li may wax mooy mhm. seen pàpp la wala seen doom wala seen maam wala seen mhm. bu leen jaroo bañ ko yëkk xam ni métier dinañ comprendre ñun victime yi li ñuy ressent alors collaboration bi dox ci diggante Jammeh ak euh, Barrow est-ce que mën nañ ko jàppee ab trahison ñeel peuple gambien bi waaw ñu bëri noonu lañ koy xoolee mhm. ñu bëri noonu lañ koy parce mënuñu koo xalaat ak yu bëri yim def baro si boppam ba mënula def nii sa toog fii pour prêter serment pour commencer defe na euh, reñam bi loolu yëpp mu def la ko euh, à cause de politique nga tourné sa doo yi amoon yëpp nga décidé ne waaw damay bëgg a nekkaat président soo dinaa def kut a kut li ma war a def yëpp nekk ko mhm. lu dangereux la te moo tax nit na di gëstu saa waaw hum alors euh, ci juróom-benni weeru ñu dëgmal njiitu réew Gambie Adama baro war naa publier ak document daal di ci fësal la mu fas yéene def ci googee rapport est-ce que seen xel dal na ci yëf yi. waaw dalut noonu parce que tamit comme niñ ko waxee alliance bi mu jël te xam ne ay nit ñu nekk ci même parti bi dinañ leen am pour juger loolu mun na tafe yooyu yëpp du dem ni mu war a demee mais ñu ñu ngi toog di xaar lu mu def lu mu warul dinañ ko si topp lu mu def lu mu warul ko si topp dinañ wax. parce que léegi comme ñu ne dans un pays de droit lañ nekk et les lois yi yëpp ñu ngi dox mhm. dinañ def li ñu wax comme ay citoyen mhm. waaw bu fekkente ni waa Gambie ak seeni autorité agiruñu lan moo war a nekk surtout seen combat Baba dara ñun dinañ jël yeneen instance yi comme CEDEAO bi mais ou dans les pays euh, dans les pays autres pays européens ou américains comme ni ñu jàppee léegi Sonko mhm. bàyyiloo ak Corée ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay crime lañ commettre mhm. mais ñoom ñëpp jàpp nañ leen dans des pays yoo xam ne du Gambie mhm. dinañ continuer mu ne suñ combat si yeneen dëkk yi Baba dara jërëjëf euh, merci fàttali ne benn nga ci membre fondateur nekk itam membre conseil administratif bu centre des victimes régime Yaya Jammeh ca Gambie merci jërëjëf jërëjëf Baba